dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko de xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ci tournée économique yi nga xam ne jamono ji ma ngi koy def ci diwaanu Sédhiou am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne Macky Sall ci campagne la nekk réew mi ko de na ñi nga xam ne ñoo naan Macky Sall ci campagne la nekk wala tournée politique ñoo ñee juumuñu ndax Macky Sall tournée économique am bii nga xam ne moom lay wax rax na ci politique ba xolam sedd waaye nag du Macky Sall rek jamono ji moo nekk ci campagne ndax ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom jamono ji ñoom ti ma ñoo ngi campagne lu journal bi nee na mouvance présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ñoom ngir ñu tànn ab candidat dina nekk loo xam ne dina jafe loola te soo muy tuulee ci biir benn bokk yaakaar dina bëri ay candidat ci alliés yi ndax Idrissa Seck ak taxawaay bii nga xam ne moom la amee ñenn ñu njort nañu ne Idi dafa bëgg samp ndëndam te ñi nga xam am na si ñenn ñoo xam ne li ñu bëgg mooy AFP am candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kay gi mi quotidien nee na tamit am na loo xam ne mënut a ñàkk maanaam ci élection présidentielle 2024 maanaam ay coalition ci ku jege yéen kay gi réew mi ko di jeex lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall bi nga na réew mi ji na ci réewum France ndax journal bi na njiitu réewum France di Emmanuel Macron nee na ñu na lu jëm ci ñetteelu candidature mu daal di koy teg ci suufa ndax Macron daan na koy wax ne loolee dafa bokk ci recul démocratique maanaam démocratie boo xam ne dafay deltu ginnaaw te dindu Afrique gis nañu fi jafe-jafe yi nga xam ne réew yu bari am nañu ko daat nay wax Macky Sall na ko yow xale nga maanaam am na lu bari loo xam ne man nga ko yor ay mbir ci au niveau international journal bi nee na en tout cas li gudd bëgg mooy Macky mbirum ñetteelu candidature mu daal koy teg ci suufa yéen kay gi la témoin nee na njiit réew mi bëgg-bëggam jamono ji mooy teg loxo ci Sédhiou waaye nag du nekk loo xam ne lu yomb lay doon ci moom yéen kay gi la Soleil nee na président ni ki démb daan nay loxo ñi xam ne ñooy waa MFDC nee na leen teg leen ngànnaay te

hôpital Maam Abdou ba ca Tiwaawan jamono ji yëngu na ndax dafa am benn détournement benn luubal boo xam ne toll na ci 60 millions moo fa indi jafe-jafe ba tey ci biir bi nee na hôpital Ndamaatu ñi nga xam ne ñooy hémodialysé yi jamono ji dañoo sonn ba mara détaillé ñi nga xam ne ñoo amee insuffisance rénale ñoom nag wax nañu ak njiitu réew mi di président Macky Sall li ñuy sàkko mooy hôpitalu Touba bi ñu daal di fay ubbi ab centre de dialyse yéen kay gi de Libération nee na journaliste Pape Ndiaye bu Walfadjri convoqué nañ ko sûreté urbaine la ko waral kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko procureur yi ndax dafa wax ne ñi nga xam ne ñoo topp ci procureur am na ci lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne ànduñu woon ci dossier Ousmane Sonko bi ñu jël ko yóbbu ko chambre criminelle la loolee moo tax ñu convoqué ko tey jii ca ajuma ji yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na ñi nga xam ne ay pêcheur lañu maanaam nappkat yi nekk Soumbédioune jamono ji ñoom sonn nañu ba mara détail ndax ñaari at ngi nii nemmeeku nañ ne géej gi amul jën ñi nga ñooy pêcheurs yi nappkat yi ñoom nag nee nañu li ko waral mooy bateau étranger yi journal bi di Sud Quotidien ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi maanaam sonn nañu ba maara détaal yi yéen a kaay gi ko de jen xëy ci ji nga xam ne moom la ñuy faral di teqale yi ndax bëri na ay xale yoo xam ne da nga leen di gis ci rond point yi ak ci mbeddi ndakaaru yi ñuy yelwaan am na si ñoo xam ne seeni yaay la ñu àndala xale yooyu nag fitna ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ leen di teg loolee jaaduwu la te li ci gën a doy waar mooy kenn wuxu ci lenn yéen a kaay gi di Le Quotidien ak Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu feebaru lèpre maanaam ngaana ji ma ngi gën di law ci Sénégal waaye nag région yi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi mooy région bu Diourbel région bu kaw Kaolack région bu Ndakaaru région bu Thiès région yii mooy région yi nga xam ne nga bëri na fa lool yéen kaay gi di enquête xëy di ko dëggal Le Quotidien lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñeenti cas yoo xam ne maanaam recensé nañ ko yéen kaay gi de la Tribune xëy ci njombe yeeg girawal yeeg scandale bi nga xam ne maanaam ñoo koy wax mu toll ci quatre-vingt-dix-huit yi ñu wax ne programme spécial pour le désenclavement ministère bi ñu dénk wàllum mooy trésor public xaalis bi fan la nekk loolee ab laaj la Mansour Faye kañ nga ci andi ay tontu journal bi de la Tribune nee na en tout cas li am ba moom intouchable la maanaam moom kenn du ko laal kenn du ko jege kenn du ko wax lenn ndax scandale gu toll ni quatre-vingt-dix-huit milliards maanaam ñu leb ko ci turu Sénégal te nekkul ci keesu trésor public yi yéen kan mooy protéger ñi nga xam ne ñooy sàcc alalu réew mi loolee ab laaj la ndax ci Sénégal bëri na si ñoo xam ne dañuy luubal alalu réew mi te du leen ci fekk kan moo leen di protéger loolee la journal bi xëy bi am ci réew mi kañ lay jeex maanaam def lu ne weng te dara du la ci fekk loolee la journal bi laaj kañ lay jeex yéen a kaay gi de la sax xëy di ñu xibaar naa ñu lu jëm ci contrat 45 yi ñuy wax ci lu jëm ci wàllum arme ci ministère bi ñu dénk wàllum environnement ba léegi pënd bi wuréegula ndax coow li jeexagul ndax ñi nga xam ne ñuy waa forum civil fàtteeguñu ko jamono ji ñoom li ñuy sàkko moo ñu ubbi cib enquête yéen a kaay sunu làmba ñu xëy fekk ñoom ñaar ñëpp entraînement nañu ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ci physique Lac ma ngi ci forme Lamine Kolo nee na rëg-rëg maanaam gënta technique ki nga xam ne mooy Sa Thiès doomu dàngoo nee na rëg-rëg mbër la moo xam ne mbër mu complet la